suñu soppe moo ñëwaat fii tey ziyaare si la ak nuyu si la ziyaare si njabootu Xaadimu Rasuul yëpp ci Tuuba ñëw bii nag tey dafa nekk ñëw bu ma def ci biir campagne électorale ñu tàmbali tey ma sàkk woon nga may ma ma ubbeeku fii ci Mbàkke ginnaaw bu ma ñëwee ziyaarale si la dalalaat la samay loxo sàkkuwaat ci yow ñaan ñeel réew mi waaye sàkkuwaat it ci yow ñaan ci lii ñu dugg tey muy beneen ngir suñu borom dénkaat ñu réew mi si coobare askanu Sénégal yëpp mu ñëwaat ci biir loolu di feddali donc taalibe di feddali it sama yéene naa ko ko suñu borom sottale si gunge la ci liggéey yu yaatu ñu koy def ci dëkk bu tedd bi di Touba. ak borom bi tëdd lépp nga xam ne yëkkati nga ko ay liggéey ci biir loolu ma ci rafetlu lool université islamique ñu daara ju kawe yoo xam ni yaa ko sàkk ngir mottal yéene seen tubaa bi mu amoon ci wàllu xam-xam ak wàllu daara muy daara ju mag joo xam ni liggéey bu yaatoo yaatu la te lépp yaa ko fas yéene motali sa bopp waaye ñuy ñaan rek mbokk yëpp mën ci barkeelu ñu rafet bi taxawaay yooyu ba tax man nga woon yow de Mbàkke boo yëkkati sumb bu toll noonu nguur gi war na féete si yenn côté bi jëm ci ñu yombal yoon yi ndox mi courant ak lépp loo xam ne dëkk bi yelloo na ko lu ma liñ ci jot a ak loolu lu weesu la damay wax mooy sama yéene ci Touba ci fan yu ak sama yéene ci Sénégal ci fan yu jëm bi ma ñëwee ci màggal bi daje woon naa ak om d'affaires yi nekk ci Touba ak li ko woon ñu xam tey fi mu toll ci population ak ndaw yi fi xëyee laaj na ñu taxawal fi ay usines mu bërëbu liggéeyukaay yoo xam ne lépp lu ñuy jaayeeti ci meññeent mbay mi war nañ koo liggéey fii mu parc industriel bu Touba waxtaan bi am na ba pare étude yi def nañu ko kon fas yéene nañu bu ñu génnee ci lii si kàttanu borom bi ñu ubbi parc bu Touba boobule nga xam ni ñii di naal dëwlin ji ñu tuddee leen rasia bi dèjà wane nañu euh, liggéey bi ñu war a mën a am ànd ak usine yëpp yi nga xam ne tey ñoo jógee dëwlin ci réew loolu dafay nekk rek joxoñ si ni usine boobu ni parc bi war a doxee ëllëg ngir ndaw yëpp mën a liggéey ci parc industriel boobu leneen li tax mooy wàllum mbéy ku ne xam na Touba euh, xéwal yi yaatu na fi ak barkelu yi moo tax ñu ne war nañ ko def domaine agricole communautaire ñu yu mag a mag ñu tàmbali ci biir réew mi yoo xam ne benn bu si ne na jël lu toll ci ñaari junni ndaw te lépp lu ñu fi jëfandikoo ci wàllu maanaam lépp lu jëm ci liggéeyam lépp lu jëm ci wàllu ganaar ak euh, ñu mën di ko def ci dëkk bi su ko defee loolu dana nekk yéene beneen bi nga xam ne yéene la itam dama ci liggéey mooy ginnaaw autoroute bi ila Touba ñu fexe aéroport bi nga xam ne tam yàgg nañ bi ko wax ñu mottali ko ci mandat bii di ñëw loolu bokk na ci sama yéene jëm ci dëkk bii bari na it ay yoon yoo xam ne waxtaan naa ci ak Cheikh Bassirou muy yoon bi ndax autoroute bi comme day yegg si il faut que ñu am ceinture beneen bu mag ginnaaw 33 bi ñu def ma bu mag boo xam ne mooy wër ndomb euh, dëkk bi su ko defee ñu bëgg ñëw directement si booru ma ji ñëw ñu bëgg continuer dem daara mën a dem te am benn jafe-jafe ak yu bëree bëri yoo xam ne du ma ko mën a nekk fii di lim ci gàttal daal Mbàkke la am ci yëngali sumb yi ñu naan depuis deux mille douze ñaari at yii ñu génn te naan yooyu yëpp suñu borom nag baaxee nañu ba programme yi presque li ci ëpp alal di teew na pare kaa ñi ko war a joxe wane nañu seen disposition pour buggeewu ci liggéey boobu kon maa ngi ñëw sàkkuwaat bi ñaan yàlla mën ñu may ndam ci euh, taxawaay bi ñu taxaw mooy élection yi ñu dëgmal te itam ñu dugg ci élection yi si jàmm ak salaam ndax Sénégal bii réew jàmm la te man ñi nag fi nag kon warul na mu kenn kenn kenn ku ñu jël fitna ak fitna bu jógee ci am réew kenn xamul fu muy fu muy teere moo tax ñëpp war a wax jàmm dox di koy ndax yàlla mooy ki may loolu bu leeree si bopp ñëpp du jar coono ku ne nag da nga sabab la suma borom moom la am sabab waaye nag maye bi moom moo koy joxe te it am na fu mu koy jaarale yaakaar naa ne fu mu koy jaarale fii bokk na ci ci lu wér kon moo tax ñu ñëw tàmbalee fii di la santal ba di la gërëm di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñu yàgg di la gunge di la di taxaw it si lépp loo xam ne mébét la may santal di ah suñ Basiru ak mboolem njaboot suñ Tuubaa bi teew fii tey ñu teewal bi si say doom say taalibe bi ak say njaboot ñëw naa ak délégation bu yaatu waaye yaakaar naa ne kàddu bi mën na yem foofu te xam naa ne incha allah bu ñu si jógee